man la Papa Amath Diouf di membre bureau communal euh, bu Pastef Golf Sud nekk président commission formation école du parti. waa moo daje bi. am fii li ko waral mooy euh, dafa am loo xam ne dañ ko sumboon ñëpp xam nañ ne fekk jamono jiñ toll nii Pastef Pastef patriote africain du Sénégal pour l'éthique et la fraternité dafay organiser li nga xamante ne mooy les élections primaires dans toutes les communes du Sénégal donc mu nekk loo xamante ne c'est une première au niveau national voire même au niveau de l'Afrique toute entière donc mu nekk loo xamante ne euh, guléet muy am fii ci Sénégal guléet muy am fii ci Afrique donc ñu war a donner le bon exemple de démocratie interne xam nga booy woote démocratie ci à l'extérieur di woo nit ñi ci éthique di woo nit ci politique autrement danga nga war a commencer si sa bopp Olof Njaay dafa ne bay sa wewu tànk ñun nag Pastef dafa am loo xam ne moo ñu tënk li ñu tënk mooy réglement intérieur ak statut en matière d' dafa am noo xamante ne noonu la Pastef wax ne noonu lañ koy organiser définir ay règles yu claires et nettes règles yooyu nag ku ko bëgg a dang koy def ci consensus consensus mooy il faut ñëpp ñi nga xamante ne ñi ngi ci biir dëppoo ci loolu la Pastef wax mais à not grande surprise dañu indil ay critères yu nga xamante ne Pastef waxu ko ñi bëgg ko imposer bëgg a forcer ñi artu artu artu gars yi të ñu artu artu artu gars yi të ba fi ma lay wax ni waa niveau au niveau national administration du parti jot na suñu contestation ñi leen leen nag na ko pousse ñu continuer di waxtaan parce que waxtaan mooy commencer mooy mujj loolu nag lañ ñu bañal ñi ne par force ñoom li ñu xalaat moom la ñuy def loolu mooy li ma wax sànq mooy que dafa am ay critères yoo xamante ne moom lañ établir pour dem élection pour dem élection cellules yi ñooy dem élection ñooy envoyé ay délégué cellule bu nekk dafa war a envoyé benn délégué parce que cellule vingt cinq personnes moo ko constitué léegi boo boo boo amaatee yeneen vingt cinq de plus nga yóbbu ñaari délégué boo amaatee yeneen vingt cinq de plus nga yóbbuwaat yen ñetti délégué muy soixante quinze ainsi de suite donc dafa am ñaari yu tënk loolu benn bi mooy vingt cinq mooy minimum bi ñaareel mooy dafa am loi de proportionnalité maanaam loi de proportionnalité mooy da vingt cinq cinquante soixante quinze mu proportionnel à notre grande surprise ñu proposé ñu benn loo xamante ne nekkul ci texte mooy lan 15 boo amee 15 mat nga cellule loolu déjà texte bi waxu ko ñaar proportionnalité bi ñu violé ko ndaxte dañ naan boo amee 15 benn boo amee 50 ñaar boo amee 75 ñett loolu nag du yoon c'est pas proportionnel yaakaar naa élève bi gën a nul collège boo ne ko lii est-ce que c'est proportionnel 1 donne 15 euh, 2 donne 25 3 euh, comment dirais-je euh, non 2 donne 50 3 donne 75 loolu boo ko tracé courbe du la jox loi de proportionnalité ku gën a nul ci mathématique xam na loolu loolu nag lañ bañ ñoom ñu bëgg a forcer day am bëgg a tëni tey moo tax patriote ñëw tey di défendre seen droit parce que défendre sa droit résister loolu ci constitution Sénégal la bokk d' abord ñun ñëpp gis nañ ne ah ah ñun ñëpp gis nañ ne président Sonko président Sonko le défenseur premier de l'idéologie patriote moom bañ bëgg a salfaañee ak xam dafa taxaw woo Sénégal ne leen na ngeen résister ñun nag fii sunu fii sunu base la fii mooy golfe sud fii mooy golfe sud ñun ku bëgg a salfaañe sunu àq ak sunu yelef dañuy résister ngay jaar sunu kaw ba pare dañuy résister ku yaakaar ne dañ la fal coordinateur wala ñu fal la ci benn président comité jox la pouvoir pouvoir boobu nga jël ko di ko utiliser na nga xam ne pouvoir boobu base bi moo la ko jox boo doxalul lu dul yoon base bi day jóg kaas nangu li nga xamante ne mooy. damay wax ni lii lii interpellation la tamit ci waa administration du parti en l'occurrence l'administrateur général le frère Birame Souleye Diop ma koy nuyu de passage ma koy nuyu de passage parce que Pastef warul nekk diggante ay xarit xarit. warul nekk diggante kii moo fi jiitu moom moo am droit yi ñeneen ñi amuñu droit Pastef amul loolu le frère Amadou wax na ko gis nga maire buñ fi fal Pastef muy jalgati ñun ñooy njëkk a taxaw jéebaane ko xeex ak moom kon kuñ fi dénk pouvoir ci biir Pastef ngay viole ay règles ñun ñooy njëkk a taxaw xeex la nangu li nga xamante ne moom mooy sunuy droit loolu la Pastef woote politique autrement gis nañ nag ñi ngi dégg lii xew ci différents communes yi barki démb gis nañ li fi xew Touba le président Sonko en personne moom moo ko publier ci page Facebook am ne man politique autrement laa wax nañ dimbali administration di parti lii nag message la pour ñi nga xamante ne ñooy gérer département yëpp ci Sénégal nañ dimbali président Ousmane Sonko parce que politique autrement la woote li ñuy li ñuy ŋàññi ci biti nañ ko dëggal si sunuy biir ñun nag dinañ taxaw temm défendre li nga xam ne mooy projet bi défendre li nga xam ne mooy statut ak euh, règlement intérieur u Pastef parce que dëkk bu amul loi dëkk bu amul loi anarchie moo fay am nit ki bu amul gëm-gëm du obéir ci ay loi lu ko neex lay def mais ñun nag dafa am lu ñu tënk ba ñu nag négocier parce que li ma ko waxee si njëlbeen lépp looy def ci àdduna li ci jiitu mooy waxtaan ñëpp a ngi woote waxtaan waaye ñi jiite tey comité bi dañ comité ad hoc bi dañoo dëgër di jaay ne voilà c' est des hommes forts alors que c' est pas ça un homme fort c' est celui qui accepte ses erreurs. ah oui un nit ku dëgër mooy ki nga xamante ne bu juumee day nangu ne juum na daal di rectifier ñoom nag dañoo juum dañoo war a waa waaw bi nag yóbbu nañ ko administration du parti donc ñi ngi leen di woo. donc ñii réglé problème bi parce que ñun nag du ñu nangu ku ñuy kuy salfaane suñu droit ah. mu du am du ñu nangu kuy salfaane suñu droit voilà loolu la amoon luñ ci sax. ngeen di demandé ko amul ci parti bi fan parti dafa am règle comme dëkk dafa am règle buñ la jugé tribunal buñ la jugé tribinal am nga droit def appel boo defee appel satisfaire ñu am nga droit dem conseil constitutionnel. foofu la mbir mi yem lu mu dogal ñi xam ne loolu lañ dogal ñun ay patriote lañ ay ñu respecté li nga xamante ne mooy règle lañ saa yu ñu bëggee salfaañi suñu droit bind nañ nu mu waree yónnee comité ad hoc ne ko d'accorduñ mu tontu ñu ñu indiwaat ne d'accorduñ ñun nag dem nañ moom ba sës fi ñu li si tegu mooy dañoo déposé suñuy recours au niveau national ne leen nañ àtte mbir mi ñoom nag am nañ responsabilité ñi àtte mbir mi am nañ responsabilité ñoom nag bu ñu àttee foofu la attekaay bu mag bi nekk luñ atte ñun ay patriotes lañ dinañ tirer les conséquences. kenn ku ci nekk ci turoom ak santam man la Fallou Mbacké Niang responsable Pastef Golf si di militer unité 2 waaw dafa mel ne li fi xew ñu ci bari am na ñoo xam ne jéeg nañ li ñu ci yëg nag mooy li ñu doon bañ ba tax ñu daje ànd gis ci suñu bopp ci Pastef ba tax ñu dugg ci loolu buko ko ñeneen naree salfaañi jëlee ko fi dañ koy bañ ba dee parce que mënuñu nangu ku jaay ci biir néeg bi te di ko bañ ci mbedd mi parce que buñ nee ñi fi nekk li ñuy doxal jaarul yoon ñu bëgg leen a remplacer ba pare ñun ñuy def lu jaarul yoon kon ñun li ñuy bañ daf mel dañ ciy bëgg a ñun nag politique taxu ñoo jóg li ñu tax a jóg mooy suñu gox ñu xeex ba li ñëpp di am te di ko jaarale ci yoon loolu ñun itam ñu am ko parce que nekkuñu fi di raay raayal Ibrahima Ndaw wala Khadija Maykor te ci groupe bi bu ñu demee ba ñoom ñu ne dañuy woote jàmm ba pare naan ñun du ñu ay ragal dafa mel ne ñoom dafa am lu ñu bëgg ñun nag du ñu leen fekk ci loolu waaye kenn du ñu teg lu ñu neexul hmm. li ñuy naqari te di ñu naqari mooy lii nii tey waruñu ko woon a dégg ci parce que fu ñu taxaw ñu ne Pastef ay royukaay lañ Pastef ñoo xam ne ku leen dégg da nga leen di naw loolu la ñuy wax Ousmane Sonko na bu ñu ko nawee ci loolu ñun ñi ci suuf dañ ko war a dimbale ci loolu ndimbal bi weesu luy dëgg ñu teg ko ci yoon lu dul dëgg ñu jël ko teg ko fële parce Pastef am na règlement yoo xamante ne nii tey bu ko waxee képp ku ko bëgg a salfaañ li ma gëm mooy poste moo la ñor man loolu laa gëm ak keneen koo xamante ni gëm nga leneen itam nga wax ma ne ma lo amul te ñoom ñëpp tey ñoom ñu doon wax ñëpp tey ci bureau bi ak ci groupe yi tey bu ñu ñëwoon taxaw fii lii ma la wax du ñu ko dindi dëgg nag bu jotee nañ ko wax te dee ñun ñëpp ñoo bokk lu ñuy xeex mais nañ ko xeex ci dëgg mais war koo xeex di farfarloo ko jël kii jël kële man awma ci ku may bañ wala ku may bëgg mais na dëgg lalu ci lépp loolu rek lañu amoon lu ñu ciy wax di sant ñëpp di gërëm ñëpp asalaamaaleykum